toujours dans votre acte du jour de ce 25 juillet une fa jógee dañuy seeti ji ki nga Ahmed Suzanne Camara ginnaaw bi invité ci plateau Seneweb ultimatum am na ay kàddu yu mu yëkkati la république ak premier ministre Binyu ñu xëyee nag ñi nga élément du commissaire Bara Sangaré bu police centrale Nyoko ko jëli Gina ginnaaw loolu ñu koy auditionné Kosu, ko garde à vue ba tey suñu ñëwé ci li nga xamanteni moy enquête bi lu mu révélé ci kaw li nga xamanteni dal moy ay charge yu 10 yo xamanteni tek nañ ko ci kaw Ahmed Suzanne Camara mom mi di Ahmed Suzanne Camara bu mu jàkkaarloog enquêteur yi bép cadre bo xamanteni waxon nako ci plateau Seneweb dafa dellu dal di assumer xam ni ko mom mi moko wax bo nopi amul dara lu mu dindi motax ñu tek ko fofu en garde à vue ci sûreté urbaine bu commissariat central bu Dakar après li nga xamanteni moy interrogation moy ñett chef d'accusation yo xamanteni jamono ji mi ngi pesé ci ndoddu ki nga xamanteni Ahmed Suzanne Camara qui lolu mu membre du réseau des enseignants de la ne du ko pour offense au chef de l'État acte de nature à jeter le discrédit sur une institution de la République et insister des citoyens à enfreindre la loi Les plots xamante dal na yi mom interrogé ci procès verbal am midi. Ahmed Suzanne Camara reconnaître que mon mooy auteuru li nga xamante ni cadre kàddu nga tenir nos côtés ci émission bi ñu tuddee ultimatum ci Seneweb web na ko daal ci kaw ki nga xamante ni le président de la République son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye ak ki nga xamante premier ministre am ginnaaw dal daal lépp loo dal ni daal préciser na enquêteurs yi maanaam mooy intention du woon dara pour offenser ki nga xamante le président wala jeter discrédit jëmale ko dal ci autorité de l'État état lépp lu mu doon insister daal mooy citoyens yi ñu enfreindre li nga ne mooy loi bi muy responsable républicain bi nga xamante ne dañ ko incriminé su sàgganee nag danañ ko defeere tey jii jeudi foofa ca parquet sauf mu am changement de dernière minute suñu sukkandikoo ci suñu ay sus kii di Ahmed Suzanne Camara ginnaaw bu mu yëkkatee kàddu yi daal nit ñi jàpp ni que daal tey jii dinañ ko jébbal li nga xamante ne mooy parquet pour que ñu édifier ko ci sorom ci ñetti chef d'inculpation yi nga xamante ni teg nañ ko ci ndodam maanaam mooy jeter un discrédit sur une institution, offense au chef de l'État insister aussi à wala aux citoyens pour que ñu bañ a respecter lii di loi yi kii di Ahmed Suzanne Camara mi ngi foofu en garde à vue en attendant ko ñu xam ne wànnante di mujjee gëtëm. Thank <laughs> you.